saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa le roi des arènes Modou Lo ma génn wax ci carrière ak ca combat ak Ama ba ñuy ngawti ngawti Modou Lo met les sur les i loolee la sunu làmb xamle roi des arènes paqueté na ay dëggam ba ñu mat sëkk mu tuuf ko axlu làmb ja Ama Baldé ou un autre bu ndaw wala keneen ku mën di nekk ci làmb man Modou Lo je n'écarte personne man Modou Lo taamuwuma teggiwuma tànnuma fi nekk nii damaa ubbi samay gët di xool ku ma làmb booleel ma bëreek yow ñu ne ko xarañ loo sa digganteeg Ama Baldé di waxtaane moom la picc yi sabe xale tondu Guijé Marseille sa digganteeg Ama Baldé saf na ci làmmiñu képp kuy seetaan làmb mu ne man Modou dama fee nekkut ngir Ama Baldé képp ubbil naa ko samay bunt ubbil ko ñeneen ñiy takk ngemb ci làmb ji képp kuy wuyoone mbër nga ubbil naa la samay bunt man roi des dara laa calculé ku ma xam-xam ma ci ñeme lu métteeg ñeme lu xotteeku kenn xameewu ma dugg fu nooy ak dugg fu sedd combat yi ma mës a jël yépp ay combat risque la nu kon du ma ñëw ba fii di taamoo ko teggi làmb ji fi mu nekk nii kenn rek laa fi bàyyi maintenant bombardier képp laa xam ne du ma bëreeg moom ren bu weesoo bombardier ne combat la sama na ñëw seeg dama bëgg ngeen comprendre ne Ama Baldé mooy takk ngemb mooy xool kase ba ko gënal mu jël ko bëree journal record ne ca tonn ne 80 yooyee sax est ce que dana ko nangu est ce que dana jël bile kase ngir mën a jàkkaarloog roi des arènes Modou foofee Max Mbergane ne l'enjeu sportif moo war a ci kaw motivation financière ya maanaam dayo bi lamb ji am ak fam ko mën yóbbu moo ko war gënal fuuf koppar gam cay jëlee Max Mbergane rax ca dolli yéexal mbir yee ci kaw Ama waaye Ama bu doon sama mbër la jël naa combat ba yàgg na fa may teg sama bët mooy ca titre roi ba mais ci koppar ga Fallou Ndiaye promoteur ne ca tonn ne ko man de bu ma nekkoon Ama Baldé ko laal xalaatuma tuuse 80 bu doon man maay Ama fu ñu fayee Modou Lo 150 millions ma fay 120 wala 130 ku koy bëree da ngaa waajal sa bopp am ay moyens te boo xoolee ci côté public moo rajo lam ca xamle mooy combat bi ñaari enjeu la am am na enjeu financier am enjeu sportif comme def na erreur ba bañ tafaati na fexee jubóog lig ki laay jël Modou ci côté finance Modou moo gën a taxaw Ama te booy waajal combat royal bëgg préparation bu baax il faut nga jàpp ci ay koppar yu bari te man ngañ jaañ damaa jàpp ne bu Ama amoon xaalis ba mu soxla am jàppale ba mu bëgg dëgg 80 yi dana ko doy waaye bu bañee 80 millions woon mën nañ caa jàpp xaadim gajaga njuga ja Ibou Diouf Aline Dione Lat ak Carlos ba ci ponkal ma roi des ba Modou mu nga fa woon teew waaye foofee Pape Mbaye ak Cheikh Sow lañ fa gisul xamuñu fan la nekk même biram ñi ngi may gorob Modou di agent teewutoon ca réunion ba journal ba xam ne bi le technique lañ fa jële mën nañ caa jàpp ne écurie Rock noppi nañ ngir jàkkaarloo ak Ama Baldé xaadim gajaga may président ba mu xam a def mbay cuun may manageru géant ñun kay def bu dee Luc Nicolaï dañoo nar teg ni tege di lijjanti ay kotam dinañ ci xam dara lim ñu def nii du leen lu dul manqué de respect loo mën a waxtaane ak ay mag ba d'accord ci ay kàddu ngay lijjanti leneen moom wax na suñu diggante ak ba ñu d'accord ba mu proposé ñu 80 ba ñu nangu ca loola boobaak léegi dégguñu ko gisuñu ko woote fi yónnee fi te loolee ñun waa Bawol jàppe ko lu dul manqué de respect te bu jàppee ne tegoon million waaye mbër képp lañ fa gis mën nañ caa jàpp ku ci mel ni Blindé Ibou Senghor 2 Moussa Ndiaye ñu gën koo xam ci hôtel Dior Ibou Senghor 2 ak Thiaw Sow ñëw finalu Thiaw Sow daan ko jël enveloppe 600 000 francs et bàyyi ko 300 ya ñaari demi-finaliste ya ku ci nekk laal nga fekk na boobee jak woote ca téere gaal gi 2 francs la fa teg ñu nemmeeku fa ponkali liit 100 francs bi ku ci mel ni Ngel Jonn ak Pakala ak Pape Maroon Sélémélé woon ak Serigne Ndiaye 2 ngel jonn ak pakala bu mbuur Serigne Ndiaye moo freiné ëbbali pakala freiné ngel jonn Serigne Ndiaye ak pakala finaalu Serigne Ndiaye daan ko yóbbu 1 pakala ñibbee 600 ñaari demi finaliste ya ca nekk yóbbu 100 journal barax ca dolli na ca poalese ba nag ñaax moo daan caatu maalaw fukki mbër ñeent la woon mu jël raw gaadu ko yóbbu 300 ya fa ñuy jeexale mooy ci écurie Lang ci seen bilan ñoom la sunu lamb xamle kenn daanu ca Arsenal ba ci 5 tonnes kenn amu ca ndam écurie boobee ñaari victoire képp lañ am muy Mame Balla ak Modou Lo bu nguy am di càmm ñuy wax booy càmm tey ko suba la moo xam mooy mbër yi defuñu seen waru gar mbër yi la leen war ca làmb ja defuñu ca dara mbër yi dañoo tax duñ déglu conseil koo ci wax muy takki xaaw aki ko ay butéel jàpp ne mystique rek kay gañe combat jërë ngeen a fës ci ëttu yéenekaay jox dig daje ba ëllëg incha allah asalaamaaleykum Sénégal man la wuli wuli